Salut les amis de eSport TV, merci encore Gaël de la confiance en nous voler, merci de vous des likes, merci de vous des abonnés, merci également Gaël de baisser les commentaires, un plaisir de nous voler chaque fois, des partages et des informations inbox sénégalais, fait folle Montenegro, 14 régions du Sénégal, Roukourari, Gorgohari, nous l'avons déjà dit folle, également aussi à l'hôpital et qui de Fabri, nous sommes en focus en bop, nous sommes gamme, nous sommes en train de aussi erreur judiciaire, nous sommes en train de faire nous sommes en train de faire des lois de l'enseignant, nous sommes de faire de l'enseignant, nous sommes en train de faire des lois de l'enseignant, on avance ensemble

il est en feu moom mi nga xam ne gars yi ba bu ko ni MVP de la saison 51 points 12 rebonds le joueur également international américain d'origine camerounaise Joel Embiid pendant l'instant, temps ki nga xam ne mooy Adrien Rabiot ou bi nga xam milieu de terrain ñëpp ñu ngi wax di Adou, Nan moom de na si Barça dañ ciblé étant donné que nous moom contrat de jeex te ba léegi gul du côté de la Juve jëm ci également ki nga xam moy donc lii du super league bi détail yaa ngi ni nga war ko xam trois ligues hein donc mo ngok hein ah, day am ligue star league am ligue gold am également blue league ku nek ak ce niveau hein match yi ñu war diffuser gratuitement li nga xam mooy donc chaque match quatorze matchs par club chaque année sept à domicile sept à l'extérieur match également milieu de semaine lañ koy daal di jouer yëpp bokk na ci nga xam mom la ñu bëgg tek ki nga xam ne également nak moy donc Alexander Seferin di président UEFA ñom nee nañ décision bi nga xam ne nag ligue européenne jël nañ ko waxul ne nam dafa d'accord ci ñu tek super league dafa fàtte rek li nga xam ne mooy donc UEFA yenn ponk yoo xam ne war nañ ko war régler ci seen règlement loolu daal war a wax nag nee na moom jamono ji daal UEFA ñoom ñu ngi wëy di taxaw ko gën ko yaatal gën ko ñoñal gën ko dëgëral loolu daal fi ne la ñu daal di addu jëm ci li nga xam mooy communiqué bu UEFA laata boobu tamit ki nga xam ne mooy donc euh, waa FIFA ki nga xam ne également mooy Gianni Infantino mel ni moom ko far ak ki nga xam ne Alexander Seferin moom daal nee na dinañ toog déglu également xool balaa ñoo jël ñun di wax déclaration bu ne xool li nga xam ne moom la waa Ligue européenne décidé xool également la moo ci taxawaayu UEFA ñu am ci ab njàngat dogo def suñu communiquer loolu daal la wax ki nga xam mooy donc Javier Tebas nee na nag kii di donc Fiorentino Perez sama xarit la mais gars yi ci ne nekkuñu ay xarit nee na intellectuellement bokkuñu gis-gis loolu wax moom nee naal ligue euh, super ligue bi ndoxu caaxaan la te àndu ci benn yoon ba tax na également ki nga xam ne mooy donc euh, kii di waa PSG di également diriger beneen kuréel boo xam ne ay club européen ñoo ci bokk et tout nga xam ne également na seen air xale fi mooy seen président ñoom nag nee nañ d' accord uñu ci li nga xam ne gars yi moo jëm ci super ligue européenne bi du tay du démb du suba loolu daal la ñu daal yëgal ki wa Atletico Madrid également nga xam c'est le grand rival hein, du Real Madrid mom tamit ancien président def na communiqué nee nañ daal fi la famille du football européen ñom dal nee bëggu ñu app super ligue xalaatuñ ko mu ne nag France Allemagne dëkk yëpp Angleterre né na gannaaw bo ci génnee ñi di wa Barcelona ak Real Madrid amul benn club bo xamné da nga leen di jappalé té ñom ànduñ ci Manchester United également mom mit fësal na ni bokul ci super ligue xalaatu ci bok ndax lool non doxalul li nga xamné rek mooy donc football ñom daal gis-gis ko def men daal ñoom ñëpp dañu ànd ànd bëgg a songandoo ñi nga xam mooy Real ak Barça pour la première fois nag waa Real ak Barça euh, far waa Bayern Munich également du côté de l'Allemagne ñoom it daal nañu fësal ne ñoom it bokkuñu ci li nga xam ne mooy Super League bi ñoom it seen communiqué dañ daal di génnal ab badaaxal jébbal ko tamit waa Super League ñoom Florentino ñu ngi ñaaw nag ñaaw na ba noppi te day gën a ñaaw ñun bokkuñu loolu daal la fësal waa FC euh, Séville également ñoom it dugg nañ tamit ci carte gi nee na ñoom ñoom daal si lii ñoom it daal nee bokkuñu ci lu ñuy mel ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg ànduñu ci suba mel na daal gars yi dañoo doon àndandoo ñoom yëpp a xeex li yi euh, euh, ci koo xam ne tu es au-dessus de la loi comme euh, ki nga xam ne également nag mooy Pape Daouda Niang wax naa leen ko monsieur bu talentueux nekk nag Daaru Salaam leen ay leeral nag kii nga xam ne mooy donc ci contrat moom nag euh, wa Chelsea am nañu moom contrat accord de principe et tout fi mu ne nag bu amee bu nekkee majeur maanaam saison prochaine bu amee 18 ans lay mën dem du côté de des euh, Blues de Chelsea keroog dañ ko invité mu ñëw seetaan si également xool installation yi xool lépp Paolo Diong donc qui va rejoindre Chelsea mais bu amee 18 ans incha allah rabi yàlla bu si cat dugg yàlla na lépp mat loolu daal la Ekrem Kounour ak daal koy fësal ak également ki mooy Fabrizio Romano pendant ce temps Pablo Longoria wax na ci kam Pape Gueye nee na Pape Gueye fi ne nag defal nañ ko proposition contrat bu njëkk déwén defaat beneen proposition contrat relancé ko maanaam yokk payoor yokku lépp dañu bëgg pap Alassane gay neex sedd mën football gaucher dal di tok waye fi nak pap Alassane gay gis na proposition yu bari tamit dafa bëgg ay garantie ndax day jouer wala du jouer pendant ce temps lo yaa nee na ñi ngi soog a gis nag ki nga xam moy mooy Iliman Ndiaye ci ñaari match yu mujj neen mi ngi wane lepp noonu également mom poste am dëggantaan mooy deuxième attaquant kon leer na kon leer na El Tactico leer na ñëpp wax nañ ko ba président club Marseille wax na ko nee position Iliman Ndiaye mooy second attaquant gars nak li ma nekkoon information ñu jox y a des surprises qui arrivent ci feetu décembre bi ndorteel également janvier coupe d'Afrique bi beaucoup de nouveautés Ñi xaar Baba Show dafa am li ñu nekk di liggéey 3 euh, semaines mo ci des inshallah allah bi yàlla ñu fekkee ko tal ko Sénégal jël ko ñu ànd ci ñep képp ko xam ne rek mérité nga dem aussi yalla nga dem yéen da ngeen gis ci li longor ya wax ci Pape Gueye ak ci Iliman Ndiaye ak également le transfert de Pape Daouda Ñong su baxé ci yéen la su bonee suñu la jaa jëf